413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu nee góor ngóoraa tax. ci ak euh, président Macky gis nañ mu recevoir le palais ngeen ngeen duyoo yéen ñaar comme niñ koy waxee dafa mel ni ci la poos yi commencé <laughs> xam nga man nag mooy sama président moom la ma yàlla booleel ma seeti ko mu defal ma teraanga. man laa yaskurin naa sa laa yaskurin laa yonent bi nee na ku sant nit doo sant yàlla ku dul sant doo sant yàlla maa ngi koy sant ci teraanga jëm ma defal may na ma lu ma kenn mësta may loolu secret la du ma ko wax cat gi daa bari eh, ba ñu catuma Eva may na ma lu rëy defal na ma lu rëy maa ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko sàmm njabootam man nag fi may gisee nii ku ma defal teraanga ma wax ko sama sëriñ sëñ sor borom daara ji daf daan wax ni baadoola rek ngay defal teraanga muy guuxle xam naan dama ko yeyoo mu ne waaye nit ku baax bu la gor teralee ni yow war nga ko wax bu ñëpp dégg ko nit kuy fakk jëf baaxul nit kuy nëbb teraanga baaxul nit dimbali la defal la teraanga naan patt buñ dama koy waxal lu baax lim ma defal man personnellement man Modou Fall maa ngi ñaanal président yàlla sàmm ko mook soxnaam taxawu ko Sénégal nag daa neex de gis nga boo nee président sama xarit la wala nga wax ci moom lu baax lii jéppi la tanaan dangay ngay dóor bu dee damay dóor it dóor bi jàll na parce que recevoir na ma ba pare ah kon dóor bi jaal na dèjà mais dóoruma ko jayuma ko fi may gisee nii nag ginaaru kenn nenu ma kenn moomu ma maa moom sama jëmm ji sama xol bi maako moom lu ma def man la neex maa ngi koy ñaanal di ko gërëm recevoir nañu waxtaan nañu laaj nañu xalaat sunu xalaat ci réew mi wax nañ ko li nu xalaat benn waaye daf maa woo ni ma boo demee ci président nee nangam nee nangam nee ko nangam man ko ni ngay waxee nii man su ma ko waxee président damay ragal man ma yee eh, ci bitti. parce que yow li ngay lim nii dangay ngay mel ni kuy xuloo xuloo woo dina la wax wala mu jox la su ma demee danaa ko déglu. réew yëpp <laughs> mi li xam naa ko. <laughs> Uh-huh. ma ne ko ñaata nit ñooy sacrifier seen bopp di jër gaal gi di seeni bakkan di ca des pour wut teraanga ma ne ko loolu moom am na ci responsabilité coonu bi nit ñi di daj pour am teraanga ci réew mi réew mi metti am ñu jàng ba am seeni këyit mënuñu am liggéey nga dem gis ñu jox liggéey koo xam ni lii ñu ko jox mérité wu ko mais lijjanti ci la ko amee borom diplôme bi ko mën ñu bàyyi ko këram muy chemin. yow dégg naa ko tukki woon nga. loolu. waaw parce que bi ma nekkee bitim réew. lii laa fa daan def ci télévision bu ñuy wax Diaspora 24 moo fa nekkoon ma fa daan liggéey liggéey naa fa cinq ans xaw ma quatre ans Alioune Ndiaye euh, bi ma ñibbisee Sénégal comme la ma doon def am na fii te fii dangay xëy di gis sa di gis sa papa fii dàq fii gën a neex ci man muy xëy di gis madam muy sañsee ceebu jën pend mbay yi xaalis bi di dugg ndànk-ndànk affaire bi neex ma démissionné ma toog waaw ma toog fii. benn nga am wala gun. waaw benn laa ama gun gun ci kanam tuuti ma làbbaliwaat su ma toogaatee tuuti kon yow dof signé lan yow ñi ko signé fi mu ne ñoo problème ñëpp. ñi signé ñëpp foo leen fekk naan kafe ngoon ak dem ci géej gi jàkkaarloog ndox mi naan j'ai problème parce que moi j'ai ci ci ci j'ai maigrir parce que waaw mënuñu ci dara dara lañ ci mënul booy takk di ñu lay indil añ ma loolu nag erreur la ak sa jabar yappar yappari ba tribunal lay signé kan man <laughs> benn jabar bu fekkee da ko nopp nag oustaz mais nopp bay signé benn nopp gi nopp gi signé benn yamu ci bu la ilaha illallah waa mais mais mais Eva signé moom ak lu mën a xew kenn waru koo def ku bëgg a yokk xeet Seydina Muhammad doo signé mais nuy ànd yow benn jabar góor gu ne war ngaa fexe di dégg foo aye tay baatu foo aye tay dafa neex ci xol foo aye tay nga ni nga tey kër kër kër deuxième dame foo aye tay tey kër première dame loolu dafa neex gis naa si soxna si nga ne ko kan la ci mais loolu dafa neex waaye waaw waaye gis naa sa soxna benn rek mais loolu dafa war a jeex ci réew mi takki leen deuxième femme yéen sénégalais yi takki leen deuxième femme yokk xeetu Seyduna Muhammad xam li ci ay ayloo ndax aawo yi wax dëgg yàlla baax nañu kenn gënu leen mais ni ñuy defaree soow sax daa yàgg. oustaz ni ngay aawo yi parce que aawo bu njëkk aawo yi. aawo yi ni ñu lay defarelee soow Eva. jël ay ruuxu naan nii lu yàgg loolu. nga takk deuxième femme mu lay defal ah salade de fruits. wala salade de wala salade de fruits ni mu sérieux salade de fruits. nga def soow di laal banaana ci biir ak pom ak raisin te du ànd ak bruit. mën nañ ko oustaz. mais ñoom bu yàgg ba lañ daan def daa woo dégg ay ruux. waaw. Mhm. ak liggéey ba wàcc ñu naan Ndijaay ñëw nga. Ndijaay kañ lañ kañ la xew yi. yu xew léegi waaw. lan moo xew. ñi naan Habib bi xam nga jigéen ñi léegi dañoo deuxième femme bi dañoo bëri femme Habib bi <laughs> Habib bi aljana dama koy tere yenn saa yi nga ne ko naan jëkkëram aljana ma ne la wuu boobu daa diis changé ko. boo ko mënee tuddee safara sax xëy na mooy <laughs> mooy tane àjjana bi. àjjana boo xam ne boo leen xulóowee boo leen xulóo léegi mu nekk safara jëgan na ma. <laughs> àjjana nag day continuer di neex. macha allah jigéen mën na mooy jëkkëram ku góor ki mooy jabaram mais chaque fois dañuy gis que ne lu ci ëpp ci conséquences yi ci jigéen ki lay dal parce que dañ naan jigéen ak ni ko yàlla bindee mais ab àtte ñoom ñaar kan la yàlla di gën a mbugal wala ñoo ko tolloo. mais ñoo ci yem xam nga njaaloo moom Eva danaa la wax dara. ñaara koy def ki masa am jëkkër ak ki mësta am jëkkër ki masa am jabar ak ki mësta am jabar bàkkaar yi nag tolloowul parce que bu fekkee danga masa am jabar wala nga masa am jëkkër soo njaaloowee dañ lay rey ci lislaam kooku amul dóor dóor mooy ku mësta am ku mësta am moom bu mosee dañ koy door parce que moom mosul am. mais ki mas a am dañ koy rey. mais des fois man dégg naa benn ustaas mu ne euh, takkagoo jigéen nga mos loolu euh, mën nañ ko nangu parce que euh, mos ci takk la bokk. mën na nekk téere chinois yi de mais nekkul téere alxuraan de loolu noonu mën na nekk ci téere chinois yi rek wala japonais yi mën na am déedéet mais mais loolu logique nangu ko sax parce que njaaloo la wala taqrabu zina. innahu kaana faaxisatan wa maqtan wa saa sabila yàlla nee na bul jege waxuma njaaloo jege gi laa la tere jege bul jege bul akolaat bul fóon bul dendandoo soril ba keroog alxayri di jib soo njaaloowee dañ lay dóor téeméeri yar faj li du kulla waxidin minhuma mi ata jalda la yàlla wax téeméeri yar lañ lay dóor mais Eva nooy imaginer ëmbal jabaru jàmbur ñëw naan danga koy ngénte si réew mi mbaa du baraaye jekki-jekki daw li fi xew Sénégal gi mais logique logique logique moo nanguwul logique moo nanguwul ëmbal sama jabar ñëw naan da nga koy ngénte si xanaa boo koy ngénte si da nga may takk ba duma la gis taxaw sama buntu kër gi looy def nga naan damay ngénte si <laughs> dootoo ko defati de ma yàggal ngénte li damay ragal ni booy jël ndaw tali cent mètres la fan la lay fekk fan ñu lay samp biteel beneen bi ci des mooy boo xasee sëy ak koo xam ni yow leer na la ni am nga jabar mm-hmm. ñu ne dañ laa war a rey mais mais buñ ko tegee ci logique yow borom ngénte li ngénte li waru la fee fekk ah bu fekkee dañ laa war a rey mais waru woon a dund bay ñëw naan da ngay ngénte si beneen bi ci des mooy wax naa ko keroog gis nga am na koo xam ne mi ngi wax ak jabaru jàmbur dégg ci tele bi ñu ne nit mën na ëmbal jabaru jàmbur ngénte si ko gis nga loolu bu ko déggee danaan wax bi may wax ak téléphone jabaru jàmbur kon garaawul comme am na accès bu ma kiiwee tam mën naa ngénte mais taxul kooku kooku da nga koy gën a influencer parce que réew mi dafa bari ñoo xam ne jànguñu oustaz Modou Fall la ñuy déglu oustaz Aline Sall lañuy ñuy déglu oustaz Pape Anne la ñuy déglu Fat Bintou Diop la ñuy déglu Assane la ñuy déglu ci ñooñu la ñuy jàngee man bu ma la daganalalee lu yàlla xaraamal danga ma ciy topp parce que danga naan Modou Fall jàng na doful bay waxantu kon ñun war nanoo bàyyi xel mission bi nu yor parce que ñun bu nu sànkoot yóbbaale téeméeri nit yi warul sànku parce que ñiy copier ci ñun dafa bari ñi niy déglu dafa bari sunu page Facebook yeeg sunu YouTube yi ay millions de personnes ñoo ci abone loo ci dugal vingt quatre heures day àgg nangami vie te ñëpp lay suivre li nga leen di jàngal dañ koy appliquer kon boo leen di jàngal jàngal leen li yàlla wax jàngal leen li sunu borom bëgg ñu mën koo jëfee am ci yiw nga am ci yiw. waaye di leen sànq di leen wax yoo xam ne tegoo ko ci xam-xam ñu di ko def bëgg lu yomb xam nga réew mi dafa am ñu bëgg lu yomb yenn saa nga dégg ko na ah man de diine oustaz diw moo ma gën a neex parce que moom busam dafa yomb méttiwul de waaye gars yi gars yi dañ koy taral ko te xam nga live bi tarul quoi fekk li leen lañ bëgg koo xam ni nag li la arrangé nga bëgg a dégg bàyyi fi alquran parce que alquran waxul lu la arrangé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 713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor tax